di jaale al imam Cheikh Ali Cissé di jaale Ibrahim ibn Cheikh Mouhamadul Mamoun ak usra Cheikh Ibrahim Niass bi yëpp di koy suñu yaay Seyda Fardem di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Mouhamadul ibn Cheikh Ibrahim Cheikh Mouhamadul Mamoun ibn Cheikh Ibrahim nit ku baax nit ku diiñ nit ku am fulla ci boppam ku am personnalité bëgg baay ak baayam ku daan xidma baayam ku daan encouragé mbokkam man maa ngi fii ci tukki waaye saa yu nekk rek ñu eh, ngi may encouragé di may gën a wax ne yoon wi nii la eh, muy mbokk mu baax lépp lu baax loo xam ne mën nga ko wax ci baayam ak Cheikh Ibrahim Niass mi nga xam ne ñoo ko meññ ak Thierno Hassane Dème rek ci lu baax rek loolu làmboo na ko moom nii dund bi gàtt na waaye lim ci def ci lu baax nit dund na juróom-ñeent fukki at defu ko ñu wax li Baay waxoon rek wal mawtu laa yadurru man qad saida bal huwa raxatun li man qad rachada ñu ngi koy wax ci Mansour mii tamit di ñaan yàlla fii mu jógee yàlla na ko gënal fa mu jëm lépp lu baax lu mu doon def ci xidmaat ci Cheikh Ibrahim Niass yàlla na ko fekk ci mbaaxam ga yàlla na ko yàlla utu ci njabootam ñu ngi koy jaalee suñu ak suñu soppee Cheikh eh, Seyda Aminta ak euh, Seyda Khady Faty doomi Alaaji Seyni di ay soxnaam ñu ngi koy jaale mboolem bi ñu wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla ñu yàlla utalal lu gën li ñàkk damm-damm ci ñun shabab bi waaye yàlla nañu yàlla jëngal damm-damm bi ñu ñàkk ci barke Cheikh wa rahmatullah Moustapha doomi Cheikh Ahmad daan doomi